nuyu bu baax ah, ñu ngi fii ci xew euh, Padros Mbaye DJ Padros borom i rajo ñu ñu taxaw ki nga xam ne mooy Kheucha borom 2STV ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay moo très cher ami maa ngi lay ziar di nuyu ami chers internautes yi nuyu seetaan yëpp di leen jox seen wàccuwaay ñoom itam di kontaan bu baax a baax tey. d'accord alors sa nawle mooy xew la tey di euh, Padros euh, bëggoon nañu xam exactement sa teewaay ginnaaw la ca jotoon na xewee ñaar ñëpp. waaw fale ma teew bi may doog a ñëw ndakaaru mu nekkoon ay moment yoo xamante ni c'était vraiment catastrophique dafa nekkoon nit koo xamante ni daf ma mës a jëmmal maa ngi fàttaliku doom bi ba may fêté sama anniversaire dafa ñëwoon ci benn bës te loolu c'était vers deux mille dix-neuf donc mu ñëw teewal ma yàgg fa lool toog xaar ma donc moo tax tey lépp lu ma jàppoon itam ma bàyyi ko il fait partie des animateurs que j'ai connu bien avant tey may intégré ci télé. Mhm. donc nit la koo xamante ni su ma nitu bopp la. Mhm. man ak moom man dama naan ko yaay sama man maay sa grand frère. tellement que dañuy waxtaanee lu ne. Mhm. waaw bësam bii nag bës la boo xamante ni ñëpp ko doon xaar na ku ne xam na ni Padros nit bu baax la. borom xol bu baax la nit la koo xamante ni amul xolu ki ñaan ci kenn. donc moo tax ma teew. vraiment ñëw jàpp ci bës bi comme tout le non donc si sama gars d' accord d' accord euh, wax nga seen diggante ñaar lan moo sax nga teew ci tout ça mais Kheucha bu la gisee ba lañ la gisaat dafay xaw a temps yi showbiz xaw na métti xaw na danse xaw na euh, euh, doy waar lool noo ko gisee concurrence beeg affaire yi. showbiz ban biñ ne nii di nga ne yow waaw mais c'est normal on parle de showbiz donc il faut il faut chaque fois que ñuy gis tendance foofu ñii di xëcc fii xëcc fële mhm. mais lépp ñu def ko rek ci yar ak teggin mhm. je crois que loolu ñuy def lépp lépp lépp lépp showbiz la mhm. donc boo demee ba nekk animateur boo demee ba nekk artiste war nga xam ne chaque fois mën nga xëy ñu waxal la wala ñu defal la dara donc c' est fort probable que yooyu di am moi je gisuma ci dara lu ñaaw quoi wax dëgg may ñaari cas yëpp peut être ak ku mën a doon nga gën a mën a forger gën a mën a liggéey xam naa ñu nekk si ginnaaw. d' accord ñu ci beneen coow bi nga xam ne itam lëmbi na Sénégal. ñi ga doon xaar non ñi ngi doon xaar Kheucha nekk médiateur. diggante Mbathio Ndiaye ak Bijou. coow li xaw na bëri ban analyse nga ciy def. non barke du bi mu jeexee laa ko gis sax yooyu moom du ma ci wax. yooyu moom mais ñi nga nekk ci médiateur. tamit médiateur lan. Ah, mais nga dox ci tànki jàmm. c'est pas à moi de faire très jeune pour ça wax raison de plus nga def lu kenn deful te te voilà te Bijou suma yaay la nit la ku ma respecté ndax wax naa ko fu ne moom indi nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla di dugg ci ay mbiram di xam naa fi ma teg quoi mhm. donc la respecte Bathio aussi c'est une artiste boo xamante ni yàgg naa ko xam donc aw ma moom yaakaar na yàlla amul benn euh, affaire boo xamante ni négatif la sama diggante ak moom donc aw ma lenn woon sama xol xëy na seytaane mu ñëw rek ma ne yàlla ci police bi affaire ah ban laalu xaar ban laalu jot na jot na non waxuma 2024 waxuma 2025 dama ne jot na waaw mais fan la fekk ba koy yër xaar leen ma rek su may takk di ngeen ma tegu rek

lu tax nga ma yow sa début loolu nañ gis nga ànd ak Sidi Diop. parce que ko gis Sidi Diop. waaw ok da nga ma gis may ànd ak Wally. waaw peut-être man awma xaar ma yàlla ci benn artiste on s'appelle on s'entend bien mosoo ma dégg mu waxal ma wala ma waxal ko damay dem soirée ba tey Wally aussi di dem. donc je crois que nii nit ku nekk rek foo jugee fu ne rek xëy na peut-être sa wërsëg fa jug moo fa jeex donc du ma blâmer benn artiste du kenn parce que yow mi média bi nga nekk. boo demee ma gisatoo ko sa bopp da nga fay ndax xëy na amaana am nañu nekk sa ginnaaw ñoo xamante ni. jóge na 22 média moom mi. waaw noonu boo xoolee sa bopp rek da xoolee mooy lool en tout cas du ko ci blâmer kii comme quoi. boo xam ne mu ngi circulé temps yi ñu ko Euh, manager manager euh, mais nee nañ ci Bastoum muy woon foofu ci xeex de Dieu au koy doog a dégg billaahi wallaahi loolu xeex non loolu moom maa koy doog dégg quoi maa ngi koy xamuma xëy na bu ma ci xamee lu ma leer après peut xeex moom bu dee am dafa am moom lu ñaaw la euh, maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax joxu date ndax na le 22. Euh, Sidi Diop le 22. waaw gars du ñu wax ci xew mi tuuti mariage na xam nga. ci leneen la ñuy wax nii. non non problème bi maa ngi bëgg a poser benn question. waaw jeex na comme damay takk jawar le 24. xam nga par respect laay taxawee ak yéen mais. Sidi waaw. Sidi Diop am nga relation bu naay sax. loo ci doon am benn tànk boo ci non yëguma coow su ma demee ba yëg ba xam nag peut-être man laa mën naa def samay démarche mais laa moom wax dëgg yàlla maa ngi koy doog a yëg barki alxuraan maa ngi koy doog yëg billaay xëy na xool ma ko woon say seet euh, waaw damaa invité Sidi danga ko invité ñëwul dama ko ma defaral ko affiche après mais nim <laughs> Qui t'a dit ça Nibs ah non man man moom je le dis à haute voix hein, je suis animateur je suis là avec tout le monde kenn musuma dégg ci leen mhm. mais quiconque ku bëgg a ak man non peut-être sa artiste ngay indil problème parce que man damay liggéey pour ñëpp parce que man may jël di teg artiste te ñëpp laay teg musuma am problème ak quiconque mhm. mais boo bëggee jël sa artiste ñu war ko invité peut-être nga bëgg ko téye après lu ci am peut-être ci yow la man xeexuma ak kenn xulawuma ak kenn I don't know I don't know xooluma euh, xulawuma ak kenn xeexuma ma kenn Matar c'est un grand que je respecte c'est un grand boo xamante ni on a partagé des moments et que je vais pas oublier c'est quelqu'un que j'aime et que j'estime mais quand même la moindre des choses peut-être bu yooyu amee ñoom war nañu xool leneen lu ñuy taxee parce que man je suis pas là pour pour Sidi je suis pas là pour Wali je suis pas là pour euh, quiconque je suis là pour tout le donc je travaille avec tout le monde ñoom war nañu xoolaat bu baax baax bu fekkee ne loolu amul. mais est waaye euh, man jàng da nga gis si leen nga may jàng man ma nekk sama bopp topp sama bopp. jaaraale kat ah, mais bés il avec la 2STV donc euh, c'est fort probable ñu liggéey et puis dañuy liggéey normal donc amuñu xaar ma yàlla ci kenn moi je suis là pour tout le monde comme je l'ai dit amuñu problème. amul problème man <laughs> man boog aw ma problème ak kenn. mais gars yi yow kan laa gaaruwaale. ah xaw xamoo man xaw ma. kon xamoo man xaw ma. tontu ci ma xamoo rek xaw ma. kon xam nga xam est-ce bi problème bi problème saay man li ma bëgg a xamal artistes yi nekk fii pay peut-être au Sénégal mooy moi je suis très et puis dama nekk sama yoon man xaaruma benn artiste pour pour poursuivre sama carrière man ñi nga xamante ni man dama leen war a présenter. war a ànd ak ñoom gunge leen dans les plus grandes salles au Sénégal aux alentours et dans le monde joué guñ sax grand donc mooy phénomène yi nga gis nii les vigies et autres man ñooñu ñooy sama star ñii c'est mes donc ku ci jàpp ne man ti ñii nga may galgalee non je te dis ah détrompe-toi parce que man je defuma ñii samay samay sama samay euh, euh, concurrent wala defuma leen foo xamante ni peut-être euh, ama leen lu ma mën a yokk ci seen seen carrière ñoom ñoom seen carrière defaru na ba pare donc aw ma lu ma ci yok aw ma lu ma ci wàññi kon du ñii ñooy tax man bu ma tëddee du ma nelaw ku ci jàpp ni sa artiste bi nga téye rek yow dina lor xaja tu te trompes xam nga kan ñan ñoo may lor les plus jeunes yi nga xamante ne man ñoom laa fi parce que je me dis que je suis l'animateur de la jeunesse maintenant vu que je suis l'animateur de la jeunesse yow nga sa artiste boo xamante ni moom il plus de trente ans nga jàpp ni kooku boo ko téyee xaja du dem non là tu te trompes ak ku mu mën a doon ak artiste boo mën a nekk bàyyi leen ñu bàyyi mu seet parce que xam naa ni après leen neer mooy loolu maa ngi leen di gërëm leen jaajëf